supporters yi nga xamné depuis 15 h amna sax ño xamné fi lañ añee fan si club yi ñi bëggee Modou ñi nga xamné Modou la ñuy noyee moo xam ñu nekk ci Sénégal ak diaspora ak surtout Gambie ban message nga leen di envoyer avant que ñu jox Baye Balla mu pour Bantamba TV mu duggal première question Baye mal nga may Modou mu nuyo sa fonté supporters yi ak fans si club yi ci bës bu mag bi nga xamné ne ci lañ jëm modlo kaddu gango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 ñii fi la ñu ndekkee ñii fi la ñu leen di sant bu baax a baax a baax ñi fi nekk ak ñi fi nekkul même ñu nekk ci diaspora bi ak ñu nekk sur région bi yëpp di nuyu tamit suñu mbokk journaliste yi reporter yi preneur de son yi caméraman yëpp ñoo leen nuyu di nuyu force de l'ordre yi tamit bu baax a baax a baax di nuyu suma tambul major monsieur di nuyu Mbayang Loum l'animatrice vraiment kontaan nañ bu baax di nuyu xarit ak am di càmm yi écrit parcelle yëpp ku lim da ngay juum mais mbër yëpp a ngi fi ñi si am combat yëpp maa ngi leen di yàlla mu may leen ndam ñoom tamit le 24 ñu si amul combat yàlla may leen combat te ñu am ci ndam incha allah ñu dugg ci waxtaan bi. d' abord ñoo ngi jégalu tamit dëkkandoo yi bu baax a baax parce que lii dafa metti tey bu ñu xewlee kenn ci dëkkandoo yi du am jàmm ndax nit ñi ak biru yi ñoo ngi leen di masa bu baax a baax a baax di wax leen ñoom ñu yokku ñaan yi yàlla may ñu ndam incha jërëjëf Modou loolu geste boobu c'est à saluer en gars waaw jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax mbokk yi ñu ngi nuyu. waa parcelle yëpp di nuyu réew mi di nuyu biti réew mbokk yi mbokk yi bisu le 24 novembre bis bu mag la ci wàllu lamb ñuy ñaan jàmm yàlla nañ ko fekke yàlla nañ ko tal buñ ko talee it yàlla nañ ko fekke te buñ ko fekke it yàlla na ci yàlla def jàmm ba képp kuy doomu réew mi boo ñëwee ci stade bi fekk fa jàmm te ñibbi si jàmm parce que jàmm moo xew ci réew moom moom la ñuy sàkku Lo ñu ngi lay nuyu bu baax yaakaar naa ni coow li bari na Siteu wax na ca Dóor démb tey nga fas yéene wax ak la presse wax ak euh, réew mi ci sa diggante Siteu le 24 novembre coow li bari ñii ne Siteu amul sens ci komba bi ñii ne Modou Lo moo dàq bëri ñii ne Modou Lo moo ëpp doole ñii ne Modou Modou Lo moo gën a taxaw physiquement ndax loolu yow Modou Lo en euh, da nga koy confirmer wala doo ko confirmer ndax loolu da koy koy confirmer tey sénégalais yëpp dégg ko yaa mën yaa doole yaa gën a taxaw physiquement yaa ko bëri ndax da koy confirmer wala loolu da nga koy bàyyi chroniqueur waaw am na li nga xam ni moom waxu supporters yi la wala ni nga ko waxee chroniqueur yi mais man moom ginnaaw yàlla xam naa sama bopp bu baax a baax te ñii toog di xool muy li xam làmb yëpp xam nañu ñun duñu xeeb bis bis bu ñëw dañ ciy def fu fulla fayda ak jom ba tax na lépp lu ñu war suñu entraînement suñu préparation nekk nañ ci dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu tal ak fekke ba la 24 lu ñu liggéey ñu war ko ko incha allah. ñu gis ñu gis ni combat bi moom nga gën a préparé sax moom nga gën a préparé que sa diggante ak Boy Niang ak Ama Baldé ci lu ñu gis ci d'après léegi euh, rumeur yi nga xamante ni jot nañ ko ci réew mi lan moo waral lool Siteu da nga gis ni dafa dangereux wala Siteu. wala fit wi dafa ma comme li gars yi naan fitam lu ko bëtam may fitam du ko ko xañ moo tax euh, Modou dem préparé wu carrément ci biir combat bi. waaw ñun lamb bu mënti am puisque lamb la ñu def métier du ñu xeeb benn benn benn benn bis ba tax na bis bi ak bis yu ñu romb moom lañu ñu yemale dañ ciy def suñu ngor ak suñu jom man li may wax chaque fois rek foo sax bëgguma ñàkk waxuma nag. làmb xare la ñëpp di xaar muy say soppe muy say bañ ba tax na lépp lu war ci lamb ji def nañ ko def nañ lu ñu war a def suñuy mbokk suñu staff di yàlla may ñu ndam la 24 loolu rek ce que Siteu bu xeex ak yow est que Siteu bu xeex ak yow di ko fekk ci xeex bi wala bu xeex ak yow da koy baaj xeex bi ñax ko jëm koo jàpp ñëw moom ci bëri bi. xam nga ay mbokam ay mbokam xamna duñ ko conseiller bu xex ak man parce que naar kenn du ko woo ci ndugum so waaw mais li bujé wax rek ma ak mom do la koy fatali mu deugal wa lu tax lolu lan mo tax ay mbokam duñ ko sétane mu xex ak Modou Xarañ Lo wa non lolu jarul di wax ñepp xam nga yow mi xam nga non man kay xaw dara dama da nga ne ay mbokkam ndigal mu xeex ak man. dama la lan moo tax nga wax loolu Modou Lo. waaw parce que ay mbokkam xam nañ ma bu baax a baax ay mbokkam xam nañ ma bu baax a baax. ragal naa su taxawee ne day xeex ak dina def bëkkët génn saako yi daw. ah incha jërëjëf jërëjëf gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar Modou maa ngi lay nuyu baax di la masawu coono bu baax di masawu mboolem ku fi teew gaay liggéey bi metti na trop sama première question Modou mooy adversaire bi ngay bëreel di Siteu dafa miin secteur bi diggante Parcelles ak Grand Yoff ak Grand Médine dugg na fi ñeenti combat am fi ñeenti ndam daan na fi sama Pape Mor Lo daan fi sama Zos ak Papa Sow ak Zarko cette fois ci. mais yooyu yëpp jarul nga yëgale fii mooy frontière bi fii ay terre la incha fi génnee doon fi dugaat incha allah. ok dañu dégg Siteu ci biir ay waxam mu ne teg fi roi bi wala ma dagg bopp bi boo bañee dama lay rey. wax ju xoromu la loolu wax ju xoromu la kenn du jàkkaarloo ko Modou Lo naan ko da ngay dagg bopp bi mais dama koy ñaan ak di ko fàttali. waaw ni mu doon waxee keroog bu ñëwee la 24 na ko jëfee muy la dëggal boppam loolu rek laa koy ñaan incha fenn lay jeexale ak yow mu melni daf la ñimé jàkkaarloo yow ne la mala la fouf fuuf lu la gor mësul wax ba paré ne la lo bañ mu yëgsi bul ko jappal bis mala la fouf lo bañ mu yëgsi bul ko jappal bis. mala la mën ba koy wax jàkkaarloo ak man de xana ci télé mais fa physiquement jàkkaarloo ak man gor mu dama ko wax andi sans mais buñ taxawé dina ko rëcc inshallah jërëjëf modulo ñi ngi lay ñu di la Massaw. ku gis ni ngay waxee sax xam ni daj ngay coono ndax préparation moo mel noonu di féliciter ñi nga xam ne organisé li nga xam ne moom mooy ëppal presse bi donte liñ bëgg lépp à 100 pour cent mën taam mais mën naa ne réussir na ko à 90 pour cent parce que nit def mu mat rek boo ko mën maam ñaari question bi des moy Modou Lo te nu gis ni sa combat ak Siteu au début dañ ne woon amul danger da ngeen a combine ñaan da ngeen a rusante ñu dem ba ci biir données yi changé di wax ngay wax lan moo war a communication boobu changé sa diggante ak Siteu lan la. waaw non dafa lekk avance ma lekk avance faaw ñu waxante jëlewuñu avance pour raayante wala pour raay neexalante dañu jël avance pour def signature yu saf ñu bëree mais pas ay jël avance di raayante wala di non loolu moom moo tax. bi des chroniqueur yooyu yëpp ñu si ëpp jox la favori à 100 pour moo doo mën moo ëpp doole moo dàq bëri pression boobu nga ko koo bëri waale ci mbër boo xam ne tey neen yaa ko mën tey lan nga koy dundee yow. tey favori boobu ñu ma def doxewu ma ko. may benn rek waaw. du ma ko doxee du ma ko jëfee parce que suma ko bàyyi woon xel kon dinaa yolomal mais li ma nekkoon démb tey laa ci gën a nekk ba tax na loolu waxu ni kii la rek waaye les chroniqueurs la mais li may xaar man xam naa ko. te incha allah yàlla na ci defal ndam bu soobee yàlla. ñu ci bëri ci experts lamb yi gis ni Modou Lo dafa yokk maas maas bi doole ju mu àndal la wala taayu Modou Lo moom mi xam moom moo gën a xam boppam ndax daa doole ko wala doon lo waaw xam nga man moom comme dama amee staff muy entraîneur ci musculation wala ci lutte bi wala ci boxe bi ñoom ñooy xam combat bu nekk ak lu mu laaj bu tax na ñun lépp lu ñu war a liggéey liggéey nañ ko poids bi nit ñee koy gis mais

non man yaakaaruma mbër mën na mën ma perturbé ci làmb parce que duma gan ci làmb nag te yàlla dogal na tàkkusaan bu ne am naa ko bu ñuy wax tàkkusaan bu mag ba tax na géew ma mbër mu ma mën a déstabiliser si géew am na non su ma la déstabiliser su ma la déstabiliser kay doo ma déstabiliser macha allah la deuxième question est et son staff waaw la c'est la pour moi dernière question mooy mooy Modou Lô dañoo gis ne que combat moog Ama Baldé combat moog Boy Niang dañuy def communication chaque jour c'est biir stafu modlo ni modlo Lo am na ak Papis ñu suñ tournés nous jël li nga xamné ni mais c'est une question mais on n'a pas le droit de poser. bismillah bismillah vas-y vas-y vas-y vas-y ndax damay poser ne damay poser ne ndax modlo et son staff ils ont une stratégie à chaque fois ñu ne ak Papis ils ont des déphasages ou pas stratégie voilà wala lan la. waaw li ma lay tontu ci loolu gars yi la xam nga fii dañ fi ñëw pour waxtaan ku nekk wax sa xalaat wax li nga xam mais dama la bu nit bokk teen ñooy laxasooy goj yow sa waajur wala sa rak wala sa mag des fois ci kër gi coow lu ñàkk waaye bu lépp amee ñu toog a waxtaane ba lépp jàll alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf Modou Lo ñu la sargal. di laaj Saliou Ba des fois wax nañ gis nañu Siteu sa adversaire yokk na poids bu musul yokk si biir combat bi ndax loolu arrangé na la wala. waaw waaw man poids solo lu ma ciy lam bëri naa yor poids bu ne poids lu poids la daanaka sax ñi may bëri yëpp ñoo may ëpp d'habitude ba tax na ay poids bu mu yokk yooyu yëpp mu dérangé wu. waaw Modou Lo euh, ci ay qualité yu mu yor ndax am na benn qualité bu Siteu yor bu métti ci moom. non non comme ni may wax rek mbër la am na ay mënin am na ay faiblesse xam nga ba tax na lépp ñun lu ñu war a jàngee sax bi jàng nañ ko ci dugub gaw ma dara di ma soxla ci mais def leen parité rek jox jigéen ñi tuuti ñoom tamit. ayca jërë ngeen jëf maa bu Sénégal la champion ñu ngi lay nuyu bu baax a baax dañu lépp loo xamante ni làmb mi ngi ko laaj euh, Siteu moo ngi si ñu gis Modou Lo dafa waxoon ne croix rouge ci mystique mais gis nañ saa Touba ak yi muy génn démb ñu dégg ko fi xam ne mooy jorwaar est-ce mën nañ xaar Modou Lo mystiquement mu ñëwaat am de. waaw man nag loolu moom boo koy def mu gën a neex parce que man na am na la nga xam ne ñoom nga a neex. ñu ngi lay nuyu. ñi fi nekk ñëpp. lay fay fan. Euh, li ma mooy gis nañ combat bi Modou Lo par rapport ak Modou Lo bi daan gis. Hmm. donte am na différence mais combat bi dana relax gis nañu Modou boo xamante ni macha allah dawul kenn Modou boo xamante ne tout le temps yaa ngi koy gis la preuve en est que barki démb gis nañ euh, ah. benn kilomètre boo xamante am na que ni yaa ngi ci daara yi doon def social ñu dégg ñi nga xamante ne ñoom ñooy tàkki daay ñu ne social boobu noonu ay sarax la yóbbu ci daara yi. ah loolu mooy li may wax rek am na li nga xam ne moom waxu waxu waxu kuy siisu la man ak daara yàgg la lu may def te kenn xamu ko mais nag comme des fois yenn yi fësal ko ndax ñi ko mënta defuñu ko di ci roy loolu moo tax ñu def ko mais aw ma sarax bu may yóbbu ci daara wallahi la li may def dama ko def te yàlla tax ci yéene wu ma ci sarax yéen wu dama ko yéene def ko te yàlla tax kese kese kese kese mës a relax ci combat yëpp amaana nit na féew seen mais man yëpp dama ci relax amul lu may daw amul lu may nëbbatu fu ma war a dem laay dem fu ma war a dem mbëtee suma taam mais combat yëpp laay yemale xanaa de xanaa dañuy mais góor moom du ñëw pour teg lu métti ma koy bari déedéet lu métti kay buñ koy teg moom lañ koy teg incha allah te gëm naa ne jour ba maa koy teg lu métti daan ko incha allah. waaw salaamaaleykum sa parcelle gépp nuyu parce que amul ku may bàyyi bi ma fi ñëwee gis naa niñ jàppee làmbaloog mais yàlla na leen yàlla dooleel si ñëpp yoon bi ma doon ñëw parce que loolu dafa nekk sama xol. parce que nit chaque jour nga dem benn koñ daj fa coono mais da dem beneen koñ doo fa daj benn coono te dëgg neexul ki la suturaal rek moo la yiir mais kii moom dina xam ne ni moom am nay question parce que ale boo gis xam na retour waaw première question bi ma koy njëkk a mooy est-ce que xam nga bàyyi nga xel ni Sa Touba jël na risque bu mag première question waaw àdduna dañuy wax qui risque rien n'aura rien waaw wop wop wop wop wop dara bi soo bëggee dara faaw nga def dara maa la wax loolu yéen a ma jàpp risque loolu gëw ma ni risque la gis nga Sénégal fii amul kenn ku fi moom dara man mii parcelle sama papa kër la fi am uh-huh. frontière bi xanaa ci buntu kër gi lay am daa a leer mais mënu tere waaw ku dugg parcelle wala ku dugg feneen waaw lamb la def ku ci nekk ni ko santire yegee ko nañ la bàyyi nga defee ko parce que ku ci nekk sa liggéey ngay def gis nga ku wóoru li ngay def am lo xam do ko sax baye xel ku li ngay def muy entraînement yi te ko ci yoon am lo xam do ko sax baye xel man fofu la taxaw man lool la gëm dama gëm yalla mo moy maye ndam ndaysan sama bi nak moy liggéey entraînement te maa ci suba ngoon guddeeg beuk mais la res yëpp ay branche la rek yu nek ci lamb vraiment waaw benen question bi ci dess moy adversaire bi biñ koy indi dañ koo xeeboon mais bi mu jege see dañ koo naw beneen bi si des mooy xeex lañ ko ñëpp digal na ko boo mënta xeex ak Modou Lo mënoo ko daan ma ne ko xamoo ki ngay war a xeexam ndax indaale nga say matuwaay yëpp parce que Modou ku yóbbuwul say matuwaay ci xeex yóbbu na la arro te boo ñëwee beneen changement léew doo ngay léew doo yow pare nga pour samp jagaar yi bu wootee si xeex bi da nga koy éliminer si xeex. jarul may tontu tontul nga ma dèjà. waaw waaw ñëwal. question bi yow tontul nga ma ko dèjà. ñëwal ñëwal que wax nga ko ne est yow sañ nga xeex li may wax chaque fois. lamb moom laa am fulla fayda ak jom lépp lu ma am dama koy def ci géew gi ka benn tàkkusaan la ñeewu ma gàcce ñi may àndal ñeewuñ ko beneen beneen beneen question rek moo ci des gëm nga ni moom moom moo fa teg jeexal mais yow yaa fa teg dese loo koy wax si loo da ngay dolliwaat cere mais li ma ko tontu woon rek waaw teg jeexal lu muy teg yëpp bisu làmb ja amu fa dara incha allah waaw kon gars yi pour samay wax waxe Modou jërëjëf làmbalo Modou maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp Modou dama bëgg a ñëw tuuti rek ci aspect technique ndax ku ne xam na ne Siteu jàkkaarloo ngeen yéen ñaar mu yëkkati kàddu jëmale ko ci yow ne bu arbitre ne prime waaw ah, ma dellu si waat voilà yaa ngi déglu ko ma ne dama bëgg a ñëw tuuti rek ci question ci ci wàllu technique ndax sa adversaire bi di Siteu dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci yow mooy képp koo xamante ni maa la sut ci làmb maa la mën te loolu lu mu gëm la est-ce que tey une fois nee na nga une fois arbitre ne prime nga daw dugg ci tànkam da lay suruxal comme fi mu jaarale say morom loolu loo ci mën a wax. ah man est fu ñeneen ñu jaar foofu laa jaar tamit loolu moom xalaatam la wax mais man ñu bari ñi ma ci ñi mu bëreel ñoo ma sut te yàlla defal na ma ci sutura boo tax ay problème mu njóol yooyu noonu aw ma ci problème fii parcelle am na lépp tay bu nekk ngi fi macha allah. aw lu mooy sóor ci loolu. léegi beneen bi. ba pare damay dégg ñu koy woowee yal mbin yal mbin mooy borom kër mais nee leen ko yal saxle ak gara mooy borom dëkk yu ñëw beneen wax génn ma ni yal mbin borom kër la mais yal saxle mooy borom réew mi te borom réew mi mooy borom kër. yilif borom quartier yilif borom gox yi. kon Modou Lo nee na moo yilif waa jàmm gën macha allah mu ñëwaat ci beneen bi beneen bi mooy Modou saa yooyu bëree ak pied droit sa nooy neex lay doon. combat bi ñu bëgg a xam Modou une fois arbitre na prime da ngay buur wutali Siteu xeex ak moom wala da ngaa fas yéene bëre ak Siteu lan nga mën a wax say supporters jërëjëf. waaw mais xam na kenn du dem guerre daan gànnaay yi lay yóbbu tamit xam ba tax na lu ñuy liggéey daal ñoo ci liggéey ak staff bi di xaar bis ba incha allah lu jaar fañ doon jaar am daal ñëw indi ko parce que incha allah mais mënuñu toog fii te gërëmuñu ñu waral fii taaru muy comité d' organisation bi ñuy organiser open press bi ma ngi leen di remercier bu baax a baax parce que lu rafet fii lu taaru fii ñoom la comité d' organisation open press bi

ça va alhamdulilah. alhamdulilah c'est que li ma lay laaj mooy man damay ñëw ci côté boo xam ne dama gis ne daa mel ni da ngeen koy xëccoo man ci li ma xam muy côté séréer si surtout ndox mi. parce que bu ma gisee laay ndàngaan ci sa côté gis yeneen i séréer yoo xam ne xam naa leen ma am ñu ma laaj ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci côté ci biir île yi ñu mel ni am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci sa côté mais moom ci ay waxam dafa mel ni foofu yow amuloo fa dara ci côté séréer si rawatina ndox mi. Modou ndax moko ko ci séréer si kan mo fa nek numéro 1 xam lay ko joo day fekk amoo mais man foofu maa ko fa jiitu lay mi nga gis mom moom tay le regroupement équipe nationale lay nekkoon depuis xawma 2006 xawma 2007 ba yalla dogal bu tuddee suma ma yaay doog ili fofu fu fa xamul wala fu ma fa demul bariwul ba tax na dama bokk fofu dañ may yow may occasion rek ma profiter remercier wala wa ilbi diko commencé ci ndangal sàmm ndangoon campement Noojoor Jonwaar Fimela Marloj Marfato Djibër Djilas ku lim da ngay juum baasul Mbunde Basaar fépp fu baax laa fa am dama ko maîtriser dama bokk foofu noonu di nuyu sama waa village Fandène suma village yaay di nuyu waa Taïba sama village papa mhm. mention spéciale parcelle daa am benn mbërkër dama ko laaj mu wax wax boo xam man dama ko jàppe sax waxu fans wala supporter mu ne ma Modou Lo ma ne ko combat si tax Modou mu wax ba sens si tax am l'an 2000 l'an 2000 ne ma athlète boo gis mu ne Sénégal fi mu nekk nii Modou Lo moo ko gën a pare ndax Modou day confirmer waxi l'an 2000 jooju ba bu dimanche bu ñëwee day wan si ta lool wala déet waaw l'an 2000 champion la ñu koy wax galas te am na li nga xam ne comme li ñuy wax rek saabu du fóot boppam mais yàlla daf ma dimbali ma am sens macha allah am parcelle lépp am fi macha allah ay xale yu sawar luur léger mi luur taille moyenne lépp laa fi am awma lu ma nam adversaire bu nekk am na parcelle di leen wax rek ñoom ñëpp maa ngi leen ñaanal di ci jiital Franc combat moom Ama Baldé yéen ngeen ñaanal ko yàlla may ko ci ndam ah Petit Lo am na combat ngeen ñaanal ko ndam Talfa am na combat ak Mbacke Faye laaj Biragour tamit am na combat Thiès Anaconda combat bi tamit ak Mamadou Ndiaye vie top am na combat ak say jàmbaar ak Pakala ñoom ñëpp parce lañ dëkk Mamadou Ndiaye ak ñoom ñang baalu yëpp nga ñaar ma leen ñu am ndam parce que lu ma nekk ñoo ngi ci tey bu nit ñi mën ma gisee kontaan ñoom dañ ci bay waar bu rëy rëy rëy rëy parce que macha allah ay xale yu sawar lañ duñ ma may dara di nuyu tamit estaafu roog énergie ak staffu jàmbaar yëpp. mu lim da ngay juum Giro Giro Seras am na ci combat ak Tapha Mbeur ñoom ñëpp yàlla na yàlla may ndam. incha allah may ma benn rek. sa combat ak Ama Baldé lañ la laaj nga ne combat bi sama combat la nga bëre ak Boy Niang man laaj la nga ne sama combat la parce que confirmation la war a doon combat bi combat kan la ak enjeu wu bi lan non combat bi sama combat la. bii nii non non non li mu wax lu am solo la. parce que am na lamb yi nga xam ni maanaam da ngay bàyyi xel supporter yi de trop ba daanaka ñoom ngay bëreel mais dafa am combat yi nga xam ni maanaam teg jeexal lay doon lu nekk lay jaral xam nga ba daanaka combat bi sama combat bopp la waaye jeex na. gars yi may jëlal rek bul kii jëlal teg ko. ah dañ may forcé waaw euh, ma lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp man euh, am ñaari question première question bi mooy euh, dañoo gis say ak Siteu ni ngeen meloon ah, nekk ay waay nekk ay xarit nekk ay mbokk on tey jii euh, ay wax jib na fépp Siteu wax na ay kàddu nga wax ay kàddu tey jii bu demee ba euh, le 24 làmb ji jeex est-ce que mën nañ xaar ngeen melaat ni ngeen melaatoon ak li fi euh, jot xew yëpp. gis nga amul lu fi xew bëri nag booy ña yàggul invité ko fii ak presse parcelle mu ñëw ñu décoré ko sport dafay boole mais tàggale. tay buñu jël dé avance luñu mëna xassas lo dañ koy def mais bu jéxé jéxna tay bu jéxé relation day continuer la vie continue am dara lu muy mëna a yàq ci diggante bi inshallah le 24 buñ ko défaré dem seetu ko jamm gën inshallah après bi ko passer ko soobee voilà gars yi kon nak gars yi. ani ko woote ak encore di nuyu wa 100 encore parcel bu baax baax. parce que 17 mbër yi yor sol yëpp ñoom ñoo ko defar ah ñoo ngi gërëm di gërëm énergie staff bu baax a baax ku ci Pambay muy Ibou Père Ndiouga ah staff jàmbaar Lato ak Sukka ah di nuyu monsieur Amadou Ba bu baax daf ñuy jàppale bu baax Père Birame Ngingue di nuyu Cheikh Oumar Anne di nuyu Adama Faye di nuyu Père Cheikh Cissé borom ATM e Fallou Sène DG global Ousmane Sy DSR moom it dañuy jàppale bu baax. samay doomu ndey muy ngeen Diop de Sagana ak góor gi si Dieng ak Pape Alioune Ndiaye ak Youssou Ndoye ñuy taxaw bu bu baax a baax a baax di nuyu colonel Cheikh Tidiane Cissé nuyu am digo sama leen na loor maa koy nuyu nuyu Tari Sarr di nuyu père ba borom drapeau bi muy Papa Mansour di ñaan yàlla incha allah dafa ñu ndam du indi drapeau bi fii parcelle fii ci stade bi ñu feetewaat ko incha allah di nuyu génération xarañ ah, di nuyu xarañ famille di nuyu xarañ moo ñu boole Tepax si club bu ànd dooleel xarañ xarañ suñu fierté di nuyu encore li ma wax rek waa Fandène waa Taïba di nuyu waa Yoff bu baax a baax di nuyu nag sama sama sama jaam yi ñoom sëñ Cissé ah ñoom Sa Touba di nuyu Omar Sow bu baax a baax ñoom lu ma nekk ñoom ci ñoom Mor ah ak sëñ Cissé bu ndaw ñoom ñëpp ñoo leen nuyu bu baax a baax di ñaan coono yu ñu daj ci làmb ji yal nañ ko yàlla faye ndam bu baax a baax di nuyu waa jaama sis tamit ah. waaw gërëm naa leen muy service de l'ordre bi xam nga taxawaay am na solo lool lool lool ak ñi ak civil yi tamit yal na yàlla def jàmm Sénégal may ñu ndam le 24 incha allah ñu indi ñëpp encore nuyu jàmbe ah borom Touba jàmbe jàmbe maa ngi lay nuyu. voilà gars yi kon nag ainsi s'achève open euh, presse bi ñuy jox rendez-vous.